ngay daw naan du ma naan boisson parce que bëgguma jabet ndekete yoo yow jabet boobu moo lay génnee moo lay génnee prison yóbbu la hôpital ngay door a ñëw sa kër. parce que. naa. Mhm. liiruma sax papier libération bi liiruma ko. Mhm. sama sœur moo ma ne liiral papier bi ñu la libéré. mën ko mhm. lu ma siy liir mën ma yow contre da am liberté provisoire ak contrôle judiciaire man ko yow looy wax nii ma gis ko muy liberté provisoire ak contrôle judiciaire. ba pare man charge mani leen yéen lii bis bu Pastef gañewul ñun ci kaso bi la ñu doon dee kon. bu Pastef gañewul woon ci kaso bi la ñuy dee. attentat à la sûreté de l'État association de malfaiteurs ah détention d'armes et de munitions. est-ce que est-ce que. nga koy lii sax yow ay reetaan di la jàpp. wallaay wallaay. pays bu bëri jaaxaan. amuñu xol am yeneen am priorité am urgence. wallaay nga bëgg a nasaxal benn nit muy Ousmane Sonko. ak ñamu àndal ñëpp. plus de deux mille jeunes. Mhm. ay ñenn ñi ay père de famille ay responsable ndax damaa jógee barki démb réunion mais ba ma demee ba xool xale yi dama ne Macky Sall li mu arrêté sax xamu ko. wallaahi ñii ñi xale yi ñu arrêté sax xamuñu ko. xale yu am jom xale yu ñoom ñoom ñoom arrêté wuñu ay naxa nax ay faya fayaade. déedéet xale yu jàng yor seen i diplôme yore woon seen liggéey ñoom la ñu arrêté. xale yu am jom. wallaay ñun cotisation yi doon def biir Pastef. waaw ci suñu salaire yi lañ ko doon jëlee mu tuuti mu bëri. wallaay ndax dañoo ni dañoo war a xeexal suñu réew. ay cadre kese. waaw wallaay dañoo war a xeexal suñu réew. man ma hmm. jàng école primaire ba université xam tout ce qui sa passait en milieu politique moo tax bëgguma woon a def politique. mais bu ma dégloo Ousmane sonk à travers Pape Alé Niang. waaw YouTube dama wàccee dama ni sama yaay am na benn agent des impôts buy wax kii de bu ko Macky Sall rajewul dinañ ko tëj ndax li muy wax ci dëkk. ñoom duñu ko nangu. wallaay. amul six mois ñu ni raje nañu Ousmane Sonko. wallaay te ñun on s'était bien préparé. Mhm. parce que xamoon nañu dinañu téye jàpp ñu par benn benn parce que nag Pastef da leen dafa leen a dépassé woon. Mhm. Pastef da leen a dépassé. Mhm. waaye lu dul yàlla neen la. wallaay lu dul yàlla neen la ñoom tey jii ñooy daw di làqatu wala ñuy tëdd di tiit ndax xam nañu li ñu def. li ñu def. li ñu yàqee Sénégal dafa jéggi dayoo. torop man su ma gisee ku leen di defendre sax damay yéemul damay ne kii est-ce que nit la. wallaahi te ñun ñëpp ñu nekk ay doomu Sénégal bëgg Sénégal avancé. Mm-hmm. man dama doon toog di tiit. am na sama benn collègue dama ko doon wax Mali dina dem bàyyi ñu boobu kenn jàppaguma. wallaahi dama ko daan wax Mali dinañu dem bàyyi ñu. wallaahi dëgg la yow nga ndax ne ñooñu say nawle lañ. dëgg la man damay gis yow nit booy jiite ay nit. Mm-hmm. da ngaa war a tëdd doo nelaw. mais Sénégal Afrique en Sénégal en particulier mhm. ngay gis ñu def la ministre wala ñu def la directeur ay nit wër la naan la sa ndayee ko liggéey ngay tibb ay millions di ko may nit duñ la wax kii fan la jëlee xaalis bi te sa salaire eggul sax kon million wala fa la yem nga am mhm. salaire u un million di maye ay dix million ak ay vingt millions duñ la laaj sax foo ko jëlee loolu yépp nag mhm. parce que dafa ñëwoon dindi ko ñu def don de soi def mhm. fraternité ñun loolu lañu xam. Mhm. nga gis nit mu nekk ci métit ngay xool noo ko ci génnee. Mhm. ñun loolu lañ doon dund Pastef xamuñu lu bon xamuñu lu ñaaw. dëgg la xamuñu lu xamuñu lu ñaaw. suñu gisee lu bon wala lu ñaaw ñoom ñu ko def ñoom ñi fi nekkoon. ministre de l'intérieur Antoine Diome. wallaay ñoom ñëpp. ku ci toog wax nga ni kii dafa wax dëgg. fekk waxul dara dëkk boo toogee jàkkaarloo sa tele ñoom ñuy wax da ngay rus yow fi nga toog parce que da nga naan nit ku simple ku am humanisme. est que war naa mën a toog di nar yi nar yu metti jàkkaarloog sa peuple bi nga xam ne ñoo la fal. wallaahi te buñ la follee doo doo doonati dara. wallaahi àdduna yàggul dund yàggul. dëgg la dund mu yàgg yàgg dañuy dellu ci biir suuf dañuy dem jàkkaarloog suñu boroom. dëgg wér. tey damay force parce que il ma wax. dama dama waxul woon. wallaay xaw ma woon sax mën nga mën nga. parce que ñeemante woon naa la. lool lool lool pour nga wax barke alxuraan. booy wax sa xol dina metti wallaay waaye coro mhm. nekkoon nañ ci kaso bi nekkin bu rafet dafa am benn phrase mhm. u ñu waxandoo woon ñoom ñëpp jigéen ñañ fa tëraloon amoon nañ kuñ fa doon jàngal alxuraan mhm. ma ni leen nañ leen jàng alxuraan ba la ñoo génn mais tey jii ku ci nekk dangay ngay sa biir kër di liir alxuraan loolu bénéfice la ci incarcération bi ñu tegoon dëgg la ba tey jii ñu di ko def dëgg la ca à travers loolu man dama daan wax naan bi ma génnee mère Amidia bi ma gis ci biir kaso bi ak li ñu ko tuumaal li ñu teg ci deram li ñu yàq deram ma gis ko kaamil yi muy yor ci biir euh, euh, kaso bi alxuraan bi muy jàng heure bi muy yeewu di julli kurusam gi ma gis mu koy téye ak maandute gi ma gis ci moom ñu naa ma ne leen ma gis kaso ni fa nit ji jaamoo yàlla mu ne ne maanaam ay ay ñaanam bu dalee mag Sall mu naa mën a ko woon dina ko gis te li ma waxoon tey am na wallaahi toog nañ tey maman ba di ko nettali tey jii ñuy wax ak àdduna wërngal këpp tey ñu toog ba di ko nettali xoola sunu borom li mu mën mais tam maman lan ngay xaar fi mu nekk nii parce que nag ñii nga fi ay Antoine Diome le juge Mamadou Seck ñoom ñëpp ñu ngi fi procureur ñoom ñëpp ñu ngi fi mais mais mais mais mais ki yor ci ki yoroon chef de gan bi comme li ñu koy waxee Macky Sall mi ngi aéré mi ngi wër àdduna wërngal këpp mi ngi dem fu ko neex ne day liggéey. dina am bis. Mhm. nañ ko bàyyeek yàlla. Mhm. ne nañ kuy def lu bon. Mhm. di ko ndamoo. la ñu ne sama maam da daal wax booba lu bon dafa wuti ay morom bis bu xëppoo sa kaw rek nga dootoo a xalaatati dara. dëgg la ñu koo baal. ñu koo baal de li ñu yàqal dafa bëri. boo jàppee benn nit du question benn nit nga jàpp de mais tu as déstabilisé toute une famille. wallaay. tu as déstabilisé ses amis. man mhm. damay am ni ma samay xarit dañ doon ñëw di ma seet ci kaso bi militants yi dañ doon ñëw di ma kaso bi mais on était dañ doon forcé wul pour di reetaan parce que bëgguñu ñuy ñibbi ak benn amertume bëgguñu ko woon. dañu mhm. doon toog sax naan suba la visite mais ñi ñuy seet bu ñu ñëwee bu ñu leen wan ne dañoo am naqar. parce que kon ñooñu dañuy sonn. sama rakk bu jigéen bi nee na moom su may jógee waan visite bu ma ñëwee damay feebar te loolu xale dañ ma koy wax. dañ maan aw bu ñëwee visite dina toog trois jours wala deux jours du nekk. te mardi ak vendredi soreewuñu. isaan. noonu. wallaay c'est grave ma ne ko c'est grave métti na mais euh, tey jii maman xale yi tey ji sama rakk yooyu man sooy wax ci maman mère daanaka damay gën a am loo xam ne dama ko dama koy dama koy daf may métti parce que. Euh, maire euh, li ma ko gis ci biir kaso bi man bi ma fa nekkee mu lay seet si amoon naa ñeemante ci moom ba heure bu ñëwaan bu daan ñibbi damay jooy beneen bi mooy jour bi ñu lay bi ñu nee mën na am tey ñu bàyyi ñoom maire ami mu di jour boobu nga xam ne nii man dama xëy fajar daw dem ak ni mu soree mu jóge géejuwaay ñëw ba ci kaso bi ma fekk ci bindu kaso bi mu toog ñu tegal ko chaise euh, wér-gi-yaramam sax mayu ko mu ñëw toog foofu pendant temps ma gis ko li mu dund jour boobu ma fekk xale yi fi ñu toog daanaka ku yor xol rek di dund di di doomu aadama rek sa xol dina naqari lool lool xale yi ak jamono jooju psychose bi. lan lañu lan lañu woon na si ñoom. Mhm. psychose bi metti mhm. jour boobu kay ñoom ñëpp a karaake. sama rakk jigéen bi jógee woon Thiès sax nee na moom ba muy dem da doon xalaat doomam yi. wallaay ndax ñoom ñëpp dañoo toog di xaar ni jour boobu laay génn. Mhm. père bi ñëw na ni ma sa yaay ngi ci buntu ci buntu détention bi toog ba vingt trois heures gis nga ba ma génnee daf ma ni falaa naroon a lal fanaan ba fajar duma dem fenn xale yi ki ci gën a ndaw dafa yendoo jooy ñibbi si di jooy wallaay parce que da ngay dem ba dootoo ci mënati dara jour boobu dama jooy question nu mu tuddatiwul mais danga naan lu dul yàlla leeg nee na ndekete bis bii dina am tey wallaay jour boobu dama jooy si détention bi ba sonn doo di nga bëgg a dëgër mais say rango ñoo ñëwal seen bopp mënoo ci dara. wallaay doo ci mën dara parce que nag. da dem ba da ngay sës. da ngay dem ba da ngay sës. Mhm. Mhm. te coro gis nga jour bu Macky Sall ne campagne amul dañuy pose élection yi. waaw boobu détention bi ñëpp dañoo dañoo dañoo anéantiru. est-ce que. ñëpp sëngéem ñëpp ñëpp. Mhm. mooy le 3 mars bi. billaahi Nafsatou dafa ñëw ba si man mu ne ma temps ami on est foutu dootuñu génn ma ne ko Nafi liy ñëw moo dàq. day gën a gaaw. suñu mm-hmm. génn fii day gën a gaaw mm-hmm. nañ leen gëm yàlla mun ma ay temps bi ma ne ko génn bi day gën a gaaw nañ leen gëm yàlla toog nañu toogee woon wallaay mais nit nit rek la mm-hmm. nit nit rek la man jour boobu la sama lekk gën a wàññeeku damay xëy dem ci boutique bi jënd dama xëy dem ci boutique bi jënd biteelu pressé yaa bu mag bi fi ma ndekkee ma toog naan ko ba mu jeex tàgg après la rendre compte ni man maako ko naan léegi chaque jour pressé yaa xam naa loolu moom monte sama suukar bi moo ko ngay dugg nekk une une une personne saine ngay génn génnaale maladie. Mhm. boo xamante ne nii bay durer à vie. Mhm. toujours nag léegi yaa ngi ci régime régime diététique. di mhm. xool li ngay lekk ak li ngay bàyyi tous les deux jours nga def test xool fu sa suukar yem. loolu nit psychose nit mënu koo dund. dëgg la. loolu yëpp du man kese nag du man kese maa génn. feebar. am na ñeneen ñu génn feebar du man kese génn feebar. Mhm. bari dañoo génn feebar. Mhm. xale yi boo toogee ñoom da leen di yërëm. yi may dem ak ñoom nii. Mhm. da leen di yërëm. dëgg la ñu nekk nag ay jàmbaar. nee nañu loo jël. boo xalaatee ni dafa war a mett da koy natt ci sa bopp. dëgg la boo ko nattee ci sa bopp. di nga xam ne dafa metti. xale yi parce que fii dugg nañu kaso génn de. ak seen premier ministre ak seen président. Mhm. mais est-ce que ñi ñu fa dugaloon am nañu courage toog fa une semaine. du mhm. ne. Mhm. amuñu courage bi. amuñu courage toog fa. ragalan ci ñoom. ndax bravoure bi ak jom jaxale Pastef àndal. nekkul ci ñoom. nekkul ci ñoom. jërëjëf maman. ok duñu la teelu yàgg. wax ji rafet na macha allah rabbi yal na yàlla sunu borom guddal sa nga fekke lépp. yàlla buñ nettali dara sa ginnaaw. macha allah nit ku sell ki. merci la yàlla teg loxo ja. nuyu ma xale yi ak bu baax a baax a baax. dinañ jërëjëf jërëjëf. donc mu doon lu métti ngeen koy dégg ci moom maman Amy Dia mi nga xam ne dégg ngeen ko léegi euh, ci waxtaan wi te boobu ba tey mu bari euh, ci yéen euh, ci askan wi ñoo xam ne daanaka dama naan c'est la première fois ngeen koy dégg. dégg gu njëkk moom ci baat bu sell bi dégg ngeen ko ci fulla jeeg fayda ji li ma doon témoigner toujours ci moom waaye itam dégg ngeen ko euh, ci li nga xam ne nii moom mooy naqar wi bi Macky Sall teg askanu Sénégal moom nag mu bokk ci victime yu njëkk yu Macky sàll yi yu jigéen yi nag waaw mu bokk ci maanaam sax mu njëkk ci victime yu jigéen yu Macky Sall yi parce que nag li ñu ko def euh, ci jël ko dugal ko biir euh, prison lu métti métti métti la lu ñaawa ñaawa ñaaw la teg ci deram yàq deram wax yeneen ak yeneen yoo xam ne nii daanaka ku ko dégg dar sa gémmiñ te gis ngeen ko ni mu toll dégg ngeen li ma doon seede ci moom imaanam njàmbaaram oyofteem ak lépp loo xam ne rek moom la àndal donc euh, maman guddal fan mama guddal fan bu baax a baax a baax a baax sunu borom wéral say cër yàlla mën na ko te dina ko def donc dañuy dem jëli keneen koo xam ne euh, dañoo jël bakkanu rakkam donc mën ngeen maa may yéen ñi nga xam ne doo leen ay victime maa ngi ñëw yéen ñi nga xam ne doo leen ay victime maa bi yéen ñëpp ngeen woote mais nag def ci bokk ñoo xam ne nii ay victime lañu dañu ko dund ñii dañu jël li nga xam ne nii tey jii moom mooy seen bakkan ñii ñu yàq seenu liggéey te rawatina ñu ñu jël seen bakkan ci kaw famille victime yooyu nag damay ànd ak Muna ñu ànd ak moom ci direct bi ngir waxtaan ak moom Muna ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax a baax maa ngi lay fay Coro si loo nekk yaa ngi ci jàmm. sant yàlla alhamdulilah sister. di la mastaw encore une fois. merci beaucoup. di la wax ni yaa ngi en direct. dañu bëggoon nga ñëwaat ci histoire bi naka la demee ak lan moo tax tey ji yéen seen famille ngeen ne victime ngeen am ngeen victime ñu ngi lay déglu. di nuyu mbokk sénégalais yi ñuy déglu yëpp à travers euh, sa émission bi. di nuyu le président Bassirou Diomaye Faye avec le premier ministre. Seydina Ousmane Sonko di nuyu tous les patriotes du monde. maa ngi daal ñëpp. may waxee yow sax déjà dama commencé lox parce que dafa doon ay événements yoo xamante ne. ay blessures la yoo xamante ne duñ ko mus a fàtte du mus a ndaxte man mii di wax ñëpp xam nañ ma maay munaa bu Sonko nëbbatuuma làqatuuma dëgg la voilà man nag euh, mars deux mille vingt et mu may fekk Côte d'Ivoire mhm. euh, ma xëy benn jour ma am benn menuisier bu ma contacté au niveau de Bignona mhm. ne ko defaral ma sama lal bi léegi mu defar ko ba pare ma envoyé sama rakk bi trente mille francs muy Cheikh Kodi mu bokk ci quatorze mooru Macky Sall yi mhm. moom lañ njëkk ci ci mars deux mille vingt et un à Bignona. Mhm. bi ma ko envoyé trente mille mu ne ma ah tey de dafa manifestation mu ne da ngay dem wala nga dem defaral ma sama lal bi ne ma xam nga ne fu ñu wootee ci mbiru Sonko kenn du ma fa jiitu ma ne ko mais njëkk la dem joxal ma menuisier xaalis ba pare après nga dem manif bi mu ne ma ok. Mhm. naka la jénnee taal motom dem ci euh, ci kii bi ci. nu ñu koy waxatee menuisier bi solee essence fi ñuy solee essence noonu ci station bu Bignona bi ci mm-hmm. station bi nekk ci marché bi mm-hmm. fa la dem di duy essence foofu la taseex manifestant yi mu gaari motoom tamit di manifester comme tout le monde parce que tamit patriote la mm-hmm. te tamit euh, jeune la woon foofu la la ñuy manifester ba si yàgg ñu pousse tuuti mel ni kuy dugg côté tàngoor yi noonu si lañ ko tiiree ñetti bal ñu tiire ko ñaari bal ci dënn tiire ko benn bal ci biir. est que. mu doon nag loo xamante ne coro. Mhm. lu ma metti la parce que euh, man d'une part mooy mosoon naa ko Abass Fall mu ne ma bu ma sentiru responsable mais dafa metti coro parce que euh, réew mu nekk am nañ droit manifester. Mhm. mais man ce que je trouve anormal mooy pourquoi. Mhm. à chaque fois su manifestation ma saana am Macky Sall et son gouvernement. ñoom ak Antoine Félix Diome dañuy jël ay par réel di autoriser les les de bi Casamance à ce qu'ils se kii tirent de sur manifestants. Mm-hmm. mu doon loo xamante ne képp kuy Casassin métti na la parce que kanamu yàlla. Mm-hmm. dañ koy def au niveau du Sénégal mais sud bi la gën a la gën a am doole. wallaay ñaata xale lañu rey au niveau du sud ñaata xale ñoom Famara ku jaabi keneen ak keneen. Mm-hmm. kero Cheikh na n'avait que vingt et un ans vingt et un ans la amoon vingt sama xol daf fees sax vingt et un ans la amoon mhm. vingt et un ans mhm. Macky Sall moo ko rey Macky Sall et son gouvernement ñoo ko rey kero man chaque dama naan su ma nekkee patriote su ma nekkee ci combat man toppuma projet de mhm. man justice lay ñaan pour sama rak justice lay ñaan pour képp koo xamante ne rey nañ lii moo taxoon man ma fokki ci prisonniers yi di dem kaso di leen seeti. parce que dafa metti te jotuñu benn condoléance lu dul Ousmane Sonko bi mu ñëwee woon bi ñoo mu dem seeti famille bi jeex na nii rek lañ ci xam xamuñu kan moo rey Cheikh. ñetti bal coro ñetti bal ñetti bal ci xale bu am vingt et un ans bal. Mm-hmm. ñun man nag maa ngi interpellé gouvernement du Sénégal notamment le président Bassirou Diomaye Faye le premier ministre. Mhm. nous voulons justice. Macky Sall nañ ko rapatrier mu dellu si fii Sénégal il est l'heure qu'il paye pour tous ces malfaits yu mu def il est temps qu'il réponde de ses actes. Mhm. il est maman saa manifestation amee day jooy. Mhm. parce que dafa metti Mhm. man léegi damay damay dem Casamance du ma am sax xale boo xam nu ma guddee guddee woon heure bu munti dugg Casamance damay fekk Cheikh ci rond point bi taxaw di ma xaar samay bagage mais léegi damay dem Casamance coro guddi guddi guddi du kenn ku ma ne kaay ma jàppale la. ana maman bi bor la coro. may lu bu baax. Ah. non non lii mënta ñàkk Mouna parce que euh, mënta ñàkk daal lii mënta ñàkk parce man. yéen ñi ko dund yéen ñi ko dund tey jii segam ñun ñi nga xam ne dañ leen a xam rek ñun ñoo ko mën mu ñu wax ma laa nag yéen donc ñu ngi lay comprendre bu baax encore une fois ma ma sœur di la saw di la wax ne bësal sa xol mais tey jii ana la maman ana yaayu Cheikh tey yow en tant que mag jigéen tey sa xol toll ci nii ana ana ana la maman. mu ngi di ñëw na. c'est ça. mu ngi di ñëw na parce que man. Euh, coro mooy li may wax ñun ay lakkat lañu. Hmm. ñun ay joolaa lañ ñun ñun xamuñu xamuñu ñaan xamuñu xamuñu taxawaalu di di ñaxtu ñun xamuñu loolu. Hmm. cheikh famille bi man kese may taxaw bi wax waxu cheikh ci internet bi mais mais kenn du wax. parce que fu mu fu ma toll woon la. Hmm. dama daan am lu ma metti ma dugal estati mu woo ma nee ma grand sœur génne li nga dugal nii tax ngay dugal lii. des fois ma toog événement am comme tabaski bi nu muy waaj am nii mu ne ma doo ma dugalal lii ñëwal ma lii envoyé ma lii. loolu yëpp gisatuma ko moo tax man ku a jàppale dana lay jàppale parce que man ki ma amoon di ko jàppale kooku la Macky Sall yóbbu. ñu ngi ñaan nag justice coro. Hmm. à travers émission bi ñu ngi ñaan justice. Hmm. gouvernement du Sénégal. Hmm. ñi rey ñi rey il est temps qu'ils répondent de leurs actes. Mm-hmm. parce que soro ñi ñu rey ay animaux c'est des êtres ay nit lañu. Mm-hmm. man bu xam-xam ne je suis une personne forte. Mm-hmm. mais ça yi may wax ci Cheikh il faut ma tuut xewal parce que d'une part je me sens responsable. soro ma ci xam ku bon la. ma ci xam ku bon la ku la fekk foofu prisonnier yi may gis xale yi ñu kosa lépp ñu amee ko ci man am na prisonnier boo xamante ne may déggante tout le temps ak moom nekkatul góor parce que ci biir prison bi la ay cëram yàqoo lépp ci nguur Macky Sall. cëram Macky Sall ku bon la Macky Sall ku bon la te ñun ñoo ngi xaar justice mu def liggéeyam. même uh-huh. justice def liggéeyam c'est tout ce qu'on demande man képp ku ma xam xam na ne man toujours dama naan justice moo ma indi ci projet bi. Uh-huh. ak jàppale sama mbokk mais président Ousmane Sonko na delluwaat tuuti en arrière. Uh-huh. mu xalaat doomu jàmbur yi dee mu interpellé ñi rey. Uh-huh. parce que ñi ñoo ngi fi coro ñoo ngi fi. ñoo ngi fi di dund ay bari la yéen dañ doon tiire ñoo ngi fi ku mënti dem nañ ko delloosi si dëkk bi ñu jugé leen une minute bel et bien à prison. bien sûr parce que ñoom mënuñu fi def loo xamante ne dañuy delloo ki dee. mais au moins bu justice defee liggéeyam même ki dee dina dina nekk si jàmm. Uh-huh. même ki dee dina nekk si jàmm. wallaay vraiment siste massa massa encore une fois parce que loolu rek lañu fi la ñu fi dese pour Cheikh ak yeneen ci victime yi waaye itam tey jii ñuy xaar yoon def liggéeyam euh, ki malfaiteurs yi laa leen di woowee ñi nga xam ne ñoom ñoo ko def te ki leen jiite du kenn ku dul Macky Sall tey jii mu nekk ci réew mi nekk ci biti réew di dem fu ko neex di tukki di dem ak a ñëw ñoom ñi bokk ci ñoom di yónnee ay vidéo mel ni ku ñuy ñaawal ak yeneen jamono jii li xol yi di yëg ñun rek ñun ñoo ko xam ba tax na lan ngay laaj nee nga justice def liggéeyam mais tam Macky Sall tey jii lan ngay laaj tey jii euh, tey jii boo li ngay sentir à travers mu Cheikh lan ngay laaj nan la toll. Doro li may laajte. Mhm. mooy que ne Macky dañ koo war a tëj kaso. Mhm. Macky Sall parce que jundit laa du ma ne ñu rey ko de. mais mhm. Macky Sall dañ ko war a tëj mhm. parce que lépp lu masaani xew fii fii depuis mars deux mille vingt et un deux mille vingt quatre amul dara loo xam ne Macky ump na ko Macky yëg na lépp coro. Mhm. Macky mais Macky moo mooy mooy jox ordre Antoine Diome. Antoine Félix Diome jox ordre les commissaires les les les les ordres de tenue. qu'on se la vérité. Macky Sall moom mooy jënd bal yi ñuy yi ñuy tiiree xale yi Macky Sall doon jënd gaz lacrymogène yi bay bay bay fi nekk nii Macky Sall moo ko fi bàyyi. Mm-hmm. kon Macky Sall dafa dañ ko war a tëj ci kaso bi Macky tribunal de Dakar ñu yóbbu ko cri chambre criminel ñu àttee ko foofu parce que c'est un criminel Macky Sall. wallaahi c'est un criminel la mm-hmm. mm-hmm. reykatu nit la. Macky Sall du nit ku baax. wallaahi du nit ku baax Macky du nit la prison parce que dafa rey ba ay nit ba pare. mu dem mu mu wan ñu moom faalewuñu parce que rey ay nit ba pare weesuwul arrêté woo nga tëj ci tëj ay nit di barricade ay nit ku wax nga jàpp tëj ay jigéen nga jàpp di dugal ci kaso bi. Mhm. Macky Sall il le pire coro. wallaay il mérite le mhm. parce que gis na bu justice defulee liggéeyam. Mhm. di ngeen gis lu doy waar parce que man man nee man Macky Sall jamono ji citoyen ordinaire la ni man. bien sûr ma defee moom nag dinaa jàmbaarloo ak moom parce que ay bakkan la rot mm-hmm. te amul dara lu amul benn excuse bu gouvernement bi Macky Sall mën a teg fii pour pour defal nit ñi amul mm-hmm. ñun bëgg nañ président Ousmane Sonko lool bëgg nañ ko suñu biir xol mm-hmm. mais lii na ci ci demande yoo xamante ne ñu ngi koy def justice justice lañu soxla justice justice lañ soxla coro que justice fait son travail Macky Sall il mérite la prison il mérite bel et <laughs> la prison. donc foofu la ñuy jaaree mun naa di la sant di la gërëm ci sa li nga xam ne mooy sa contribution di la masawu encore une fois di masawu toute la famille di masawu la maman di ànd ak yéen naqar wi incha allahu rabbi lépp la ñuy ànd ba keroog Macky Sall ñu koy téye fii ci Sénégal yoon def liggéeyam ñu gis ko ci kaso bi mu tëdd comme ñu ko ñëpp bëggee incha allah jërëjëf. merci beaucoup merci merci sister donc euh, métti na métti na torop métti na lool ba fi métti yam métti na trop torop vraiment boo koy xool métit bi.